ca mbokk internet Sunugal 24 ñi ngi am mbégte ak contentement bu mag a mag di leen jaajëfal saa su ne nee naa leen yéen ñuy safoo duñu ñu suñu ay plateforme mën ngeen ñu abonné bu baax a baax sur YouTube wala Facebook di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ginnaaw jàmm ci la lépp xaj te ginnaaw jàmm gën jamaa tey nag dañoo dalal kilifa gu mag a mag a mag nee naa leen génnam yombul saa su ne eh, eh, eh, mën nañoo wax ni li muy génne dañ koy compter waaye nag fexe naa jaayante daal di ñëw toog fii ñu fas yéene fee waxal waxtaanee tey lu ama ama am solo ñu gën ko xam ci Serigne Ablaye borom joni joni gars yi nee naa la ko mën ak ku koy jëm bokkul yaa xam te woon naa jàkkaarloog moom tey def naa la tout ba mu ñëw nag Serigne Ablaye borom joni joni ñu ngi koy jaajëfal bu baax sëñ bi nuyu nañ la. ñoo ngi lay siyaare Serigne Saliou di la jox sa wàccuwaay di dina ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu téwér mm-hmm. di ñaanal xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall ji fi toog mm-hmm. mu yàgg fi loolu téwér ñaan lu mu ko ànd ko mbokki taalibe ci barke Cheikh Ibrahima Fall am macha allah jërëjëf sëñ Saliou di bég lool ci ne ñoo nañ ko fii jàkkaarloo jaw mm-hmm. di ci am yéene di ci am ak mbégte di ñaan bi tëju bi lan moo koy waral des fois gars yi dañ lay soxla daal sëñ bi kañ lay génn kañ lay génn mais pour ñu gis la nga génn wax problème la xam nga sëñ Saliou mhm. maanaam génn bu bëri day bokk ci jot dëgg la te ñaari boo tënkoo rawatina nga nekk ci àll bi mhm. nekk foo xamante ni daanaka da ngay sori ndakaaru njaay gi lool mhm. saa soo génnee doomu aadama yi di daw di ñëw sa buntu kër am ak ñeewantal ak yaakaar ah xolub yaakaar buy tas xamante ni nit jóge na fu ne ñëw toog sa buntu kër ko fa romb loolu day xaw a tis ci ñun dëgg la waaw ah, loolu lay a ñaari gëj génn bi waaye génn gi moom lu ñuy bëgg lay doon ñaari ndax njariñu doomu aadama yi ndax gis nañu yu ci bëree bëree bëri mu ngi doon ay jàngoro ci ñoom mu bëgg a saafarawu muy tële ci ñoom lool kon tey loolu bu nekkee ci ñun mun leen koo baaxee te yàlla rek tax bu ñu amee jotu génn gi dinañ ñëw jàkkaarloo ku mel ni sa jëmm ji ci am mbégte lool mhm. allah mi ngi noonu ñu gën ko xam ci Serigne Ablaye borom joni joni nee naa leen amul temps nag waaye tey boo demee fi nga xam ni foofu la ne gars yi dañ ko fay rek ba tax na amul benn temps ba saa su ne ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax nii lay demee waaye tey fi ñuy tijjee waxtaan bi Serigne Ablaye dafa am actualité yoo xam ne tey jii dafa am lu ci mel ni wàllum politique bi euh, euh, Sonko Bassirou yu Faye tey jii nii ñu daal di indi Bassirou Diomaye fay teg ko fi gars yu bari fi mu toll nii li ci des ci élection yu bareetul ñu naan élection yi dina am mbaadu am tey boo déggee kàddu yooyu noonu lan nga ciy mën a wax. waaw xam nga sëñ Saliou fi mu ne jamono dafa toll foo xamante ne nii maanaam lii di xeetu politique. Mhm. ñi nga xam ne ñoo ko seq ñëpp ku ku ci nekk it sa xel mu rafet ngay demee. Mhm. bëri nit ñoo xamante ni nii ñii nga xamante ni ñoo jiite réew mi ak ñi ko àndal te ñu nekk ci seen ginnaaw lay am dëgg ak lañ leen di wan. Mhm. daa doonut benn. Mhm. maanaam ci ay tappale képp la ñuy dox. lii di yi nga xam ne jëm nañ ko nag ci deux mille vingt quatre bi. Bassirou Diomaye mii. bokk ci ñuy naa am wala du am. ñoom ñoo la gën a xam ne boo amee. Bassirou Diomaye fee moom kenn waxatu ko réew mi ci ay loxoom lay mujj. Hmm? ci yàlla loolu moom dara dindiwu ko. bu amee le 25 février bi dama ne la bu ñu ci defee ay tappale laa la wax. Mhm. wala ay caaxaan ba mu wér ni la nee nañ yi amul xamal ni ñoom xam nañ seenu daan fi mu féete seen diggante ba Diomaye mais sëñ yaa ngi wax lu garaaw moom man maa la ko wax te takkal kon bi daal bu fekkee am na Bassirou Diomaye Faye mooy nekk président. dama ne la sëñ Saliou. ci mhm. lii ngay liggéey yaakaar naa saa soo xëyee da ñuy gis ci internet. Mhm. foo ma mës a gis vaar. dëgg la wala ñu yóbbu ma fa. wala ñu ne moo waxoon lii te amul. indil ma. laay laay la dama ne la indil ma wala nga dugal wax ci lu la neex man du ma sëriñ bu ñu yóbbu faar sama làmmiñ bi balaa may wax la may wax xam naa lu muy doon te luy tegu ci xàqan mhm. day doon nekkul loo xamante ni lu may laabat lay doon dama ne la mhm. deux mille bii deux mille vingt quatre bii mhm. élection yi bu amee Bassirou Diomaye Faye jël yow xanaa mosoo koo loolu de maa ngi koy doog dégg bu dee fen nañ ñëwaat nga ne sa ñu bëri sañ sañu sañu ñu wax yi bu dee nañ ñëwaat nga ni sëñ Ablaye Fall lii yaa ko fi waxoon bis nangam heure sangam lii nga waxoon amul jëlal dugal ci internet tàppee man maa la wax loolu. ca yàlla loolu am na solo defe naa ni gis ngeen révélation yi nga xam ni amal na ko waaye ba tey eh, eh, eh, fi may ñëwee mooy que ni gars yu bëri ñi ngi naan Amadou Ba Amadou Ba ndax fi ñu toon nii nee nañ Basirou ma ngi ci ma ma kaso tey est que Amadou Ba ko ëpp doole ba jël réew bi xam nga dafa am loo xamante ni sëñ Saliou ci mm-hmm. ndimbalu yàlla nga kaso jombul ne ku nekk ak la la fa ñaanuñu ko kenn nag. dëgg la waaye dafa am loo xamante ni yàlla suñu borom moo koy namm ci doomu aadama mu di ko def. Mhm. gis nga ki nekk ci biir ak ki nekk ci biti maanaam koo ci xayma woon seen i xol amul ku ci bokk ak moromam koo ci xayma woon seen i yéene. Mhm. amul ku ci bokk ak moromam. Mhm. doomu aadama yu dufuñu sénégalais yu dufuñu xam nañ li leen di jariñ xam nañ li leen di wàññi. xam nañ fi dëgg ne xam nañ fi caaxaan ne. xam nañ ku leen di yóbbu ci kan xam nañ ku leen di ku leen di delloo ginnaaw. lii ma la wax nii ko Bassirou Diomaye Faye nekkam gi mu nekk nii ci kaso bi nii te génn. waaw dama ne élection yi bu ñu nee salaamaaleykum. Mhm. am na. Mhm. mu wér la moom mu ngi ci biir comme nii mu leer xàqan nii. Mhm. ku koy teree jël réew mi gisuma ko. ku koy teree jël réew bi gisoo ko mi ngi noonu loolu am na solo trop ñu gën ko xam ci sëñ Ablaye borom joni joni nee naa leen euh, euh, benn actualité boo xam ne dañ cee dugal rek waaye tey dinañ dugaat ci leneen ak leneen ñu tijji waxtaan bi ci wàllum seet parce que dégg seet amoo ci maas tey ba ma doon wax tuuti ci wàllum seet te dañ ko yombal lool lool waaw sëñ Saliou gis nga seet nag maanaam dafa am ay conséquences yu ci nekk yoo xamante ni. Mhm. fi mu ne ñu ci bëri jël nañ ko def ko caaxaan te du caaxaan. Mhm. gis nga tabiram. waaw ak rawxaan. Mhm. ak li nga xamante nii dafa nekk ci doomu aadama di nelaw ci moom. ngir nga mën a jël sa ramli wala nga jël sa këyit wala xam-xam bu la yàlla mën a may ci wàllum seet. jël ko topp ko natt loolu ba xam kii nii lan moo nekk ci moom. ba mën a génne li nekk ci moom wax ko ba moom mu yaakaar ne da ngaa dëkk ak moom benn kër. ba mhm. ma yaakaar ne nit moo ñëw ba ci yow wax ko say mbir. Mhm. loolu yaakaar naa ku mbooleem ku may jëflanteel xam na ko ci man seet dafa am yoon. wax lu maasee jamono nag wala nit woo la ni la seetal ma. Mhm. nga jékki-jékki xool lu nekk ci sam xel. xalaat ni jamono ji toll na fii ni ñaa ngi dund lool. nga yëkkati ko wax ko doomu aadama ji. maanaam loolu bokkut ak li nga xamante ni maanaam mooy dëgg-dëgg seet. am na ci ñoo xamante ni boo leen boole woon. tey jii ñoom ñëpp dugal leen ci néeg koo ci doon seetloo moroomam sëriñ si giñ naa ko ci yeneen yàlla Muhammad kenn du ci gis moromam. Hmm? waaw kenn du ci gis moromam maanaam seet lu ay pexe. dama la ci nettali benn histoire bu ndaw jamono yii nii ci ginnaaw. Hmm. matagul weer. boole nañ ma fekk benn soxna soo xam ni bitim réew la mu ñëw fi am fi six mois. Hmm. bi fi ñëwee joteeg waa juróom bu jigéen ba génn kër gi dem lu luwe ji ngir tamit topp na su bakkanam xam ni jekku na àdduna mën na jamonoom maanaam bi mu jotee waa juróom bu jigéen ba génn dem wuti maakaan bu nekk am na fa weeru yàlla boo xamante ne nii maanaam mu ngi ci jàmm mu ngi dund lu ko neex am ci ay nekk ci nafsu ba kanam daal. dëgg la jékki-jékki ay natt yu métti wàcc ci moom. waay sëriñ bu mu dem ñu ne liggéey sëriñ bu mu ñu ne ko ay pexe la sëriñ bu mu ñu ne ko sa jëkkër ji sëriñ bu mu dem ñu nga nekkal sëriñ bu mu dem ñu ne ko nangam ak nangam ba jaxase mm-hmm. boole ma ak moom soxna si mun naa laa wax fu mu nekk somoon la dëkk. est-ce que. duy teggi nag ñuy toog ci télé naan diw. dëgg la wala nangam waaye dama lay wax ci wàllum seet bi ñu ma booleeg moom mu ñëw ni ma sëñ Ablaye dañ maa booleeg yow damaa bëgg ku ma seetal. Mhm. yàlla dogal ñu seq man ak moom wàllum set ñu xoolal ko ay mbiram xool li nekk ay mbiram xool natt ay mbiram li nga xamante ni maanaam moo ko jaxase. Mhm. ba li jàpp-jàpp àddunaam gàllankoor yi topp ko. dara lu toll ni tarafatul ayn. Mhm. topp ko ci bi ma ko seetalee seet bu li ma ko njëkk wax mooy. sarax yi nga xamante ne moom laa ko wax tey boo ko xayma matul ñeenti téeméer bi ma ko génnee pare dama ko laaj ana sa waajur bu jigéen mënu ma mun si man ne ko lan nga jotee ak moom. mu ne ma ndax ki ma booleeg yow dafay jaar. ma ne ko soxna si mun ma man ko bu fekkee seetlu moo la indi nga wax ma lu leer bu fekkee dangaa indi leneen nga génn kër gi ndànk te jël sa taalaat sa oto dem ñibbi. Mm-hmm. mu wax ma fi mu jaar ak waa juróomu jigéen yëpp ma jënd loo ko la jënd loo ko kol. ñu mm-hmm. ko boo demee teg ci ñaari junni. boo demee raamal ba ci say oom waajur bu jigéen nga baal ko àq fekk demoo ci moom amut sëriñ bu la mën a wax ne la mën na laa ñaanal. ba nga delluwaat ci la nga nekkoon. wala mën na laa ñaanal ba nga génn ci natt yi nga nekkoon mhm. waajur yi duñ caaxaan dëgg la dama ne la seet dafa am yoon bëri ñoo xam ne yàq nañ seen àdduna woo ab ko seetloo ñun ko laa liggéey mhm. wala nangam moo la jàpp wala sa wujub moo la jàpp wala sa jëkkër ji def na la nangam ginnaaw ko ci yeneen yàlla Muhammad ku ko ci moytuwut ko wax sa boo duggee ci bàmmeel nga xam ne yàlla rekkee buur na ñoo xam ne seen àdduna jaxasoo na mhm. xam ne seen àdduna yàqu na sëriñ si di ko teg yenn doomu aadama yi ci wàllum seet di leen tiital ngir lan la ñuy séntu ci ñoom muy xaalis. xaalis te yàggul fii la yem. dëgg la ab diggante la rek te amaana lam lay jox boo ko téyee sa néeg boobu ñaari fan ñetti fan. dëgg la mun waat fay mat nga des sa diggante ak suñu borom. loolu dafa mat di xalaat. dëgg seetlu ay pexe nañ koy teg ci yoon. Mm-hmm. amul ku may mës a jëflanteel seet ma wax a jaw ci wàllum seet ba noppi suñu Saliou ba noppi nga wëlbati ko waat ni ma sëñ Abdoulaye li nga gis gisuma ko yombul giñ naa ko ci yeneen yàlla Muhammad mhm. bu ma la seetalee da nga naan man ak yow dañoo dëkk seet amuñ ci maas macha allah waaw lii ñëw la ko seet da ngeen defe naa ni tey bu la seetalee di nga mel ni tey jii ni maanaam seetu nga jàkkaarloo gisaat lépp foofu noonu sa bopp que euh, euh, li ko ci yàlla may waaye fi mu toll nii dañ euh, dañoo nekk ci loo xam ni maanaam mariage yi mariage trois mois yi mois yi un mu daal di tas loolu lan moo koy waral dëgg-dëgg ah si Saliou laaj nga ma loo xamante ne nii lu may sa war a tontu la. Mhm. ndax jamono jii ñu nekk ku ne xam na ni jamono ji dafa tasaaroo te diggante góor ak jigéen dafa am lu doywaar lu ci laxasu loo xamante ni képp koo xamante ni nii yaa ngi gis góor. Mhm. di ko bëgg di dugg ci moom. Mhm. ne la ci ak bëgg dugal. bu la ci ay pexe dugal waaw. képp ku gis jigéen tamit bëgg ko di dugg ci moom bu la ci pexe dugal na la ci ak bëgg dugal. dugal ak yërmande. sëñ Saliou bëri na takk yoo xamante ni Euh, maanaam sëriñ leen takk. sëriñ leen takk. waaw. waa defe leen takk. waaye du ak bëgg. dañuy liggéey daal nit ki. dañu lay liggéey pour takk la. waaye kooku nag ka ngay ka ngay bëgg mu bañ nga dem liggéey ko ngir takk ko takkee ko ci am xelam ab dof nga takk. Hmm. ab dof nag boo ko fajee ba mu wér nekk nit. maanaam dina dellu fa mu jóge woon. dëgg la ndax dégg nga mu baax. bu baax a baax. dama ni la koo takkul ci am xelam. Hmm. ba mu sëy si la ñëw sa biir kër. ba muy ñëw sa kër ak dof la ñëwaale ci kër gi. dëgg la. bu demee faju ba wér maanaam dina dellu fa mu jógee woon. waaw ah, àndul ak sagoom ba ñëw. takk yi balaa kencee kenn demati ci sëriñ. Mhm. maanaam bëggante gi moo ci njëkk am solo. bëggante ñaan lu xam nga fan la ware mhm. man bëgg naa ndaw si bëgg na. yaayam moo bañ. wala baayam moo bañ. wala ay mbokkam ñoo bañ. yéen ñaar ñooñ nag moom maanaam lislaam dagal na la sax def seen diggante ay ñaar ay ñaan. yoo xamante ni lu leen di boole ndax ndax sëy ab jaamu yàlla du ay caaxaan. Mhm. waaye pexey sëy ñu takk ci ci sëriñ si ci def def yi. Mhm. loolu nañ ko bax ndax koo ci takk ci ak dof bu wéree woon la ginnaaw. dëgg la beneen bi ci topp nag mooy bëri na luy tas yu sëy ci seen biir néegu sëy yii. Mhm. giñ naa ko ci yeneen yàlla Muhammad ñàkk kattan seen i borom kër ñàkk kàttan yi ñàkk kàttan moo leen ko yóbbee. lillaahi wa rasuulihi képp koo xamante ni yaa ngi sa biir néegu sëy mënaloo sa soxna dara wala booy ànd ak moom balaa muy yëg boppam maanaam nga yegg fa nga jëm lii laay warasuul yi woom mais sëñ bi traitement pour wàllum kàttan parce que fi mu toll nii defe naa ne néegu sëy yu bëree bëri bëree bëri loolu moo ko tas te fi mu toll nii ñu bëree bëree bëree bëri gisuñu ñoo xam ne war nañ leen mën a saafaraal seen jàngoro parce que ñemeetuñ ku nekk day xëy génne garab waaw sëñ Saliou xanaa xamoo fi mu ne ni bëri góor ñu dee ñoo xamante ni seen soxna yee leen rey ah billaahi barki sëriñ Saliou waay dama ni la bëri na soxna yoo xamante ni nii mm-hmm. seen yi borom kër ñu ngi dee mm-hmm. ñoom ñoo leen rey danga may laaj lañ la leen rey. waaw ci da ngay dem ci ab sëriñ. Mm-hmm. yow soxna si nekk sa boroom kër. Mm-hmm. nga ne ko sama borom kër maanaam dafa dem ba yëg boppam. Mm-hmm. amatuma ci moom dara. faaleetuma takk na ma indi na ma ci kër gi. toppatootuma lu ne mu ma fay def sëriñ bi ne la dinaa la joxub noot. lu gën a daase nootub lekk. lu ñu la jox ne la joxal sa borom kër mu lekk lu ko gën a daase ci àddu gisuma ko. président doo gis góor ñoo xam ne dañu nekk seen biir kër seen biir yu toll nu leen neex. waaw di ëff rek di dem. di ëff rek di dem. Mm-hmm. wala nga gis ñoo xamante ni dañ naan la daam lu nekk sama biir bi di màgg. Mm-hmm. côté bii lay mettee côté bii lay méttee nootu tooke yi nga xamante ni du rees. Mm-hmm. xeetu poson lay doon. mooy dem nag ba yóbbee sa borom kër ñàkk kàttan goo xam dut la mën a la ci dara. nga tappaas ko histoire tas sëb sëy bàyyi ko jàngoro joo xam ne mën na koo sax rey. dëgg la wala yow nga xamante ni da ngay bëgg soxna mu bañ. nga dem ci ab sëriñ di ko nootloo mu yëkkati ab sunguf ni la fexeel ba jox ko ci lu muy lekk wala mun la ndax bu ñëwee sa kër dina la seet si wala ngeen ko ndax boo ko joxee mu lekk dina lekk mhm. nga yóbbu ko jàngoro joo xamante ni xamoo foo ko jëmee ci àdduna dama ne la noot du lu ñuy lekk du lu ñuy naan noot nag moom àdduna képp koo xamante ni gis nga ma man sëñ Ablaye Fall mhm. ma ciy jëflante mhm. ak doomu aadama yi xam nga ne noot suñu borom fii la ma ko jox li may liggéey nootu ci gën a tuut dëgg la gisuma ko may nootal muy romb ñaari fan ak koo mën a doon ci àdduna ci ñaari fan billaahi lazi laa ilaha illa ma la musuma nootal nit mais loolu xam nga dama koy dégg souvent ñu naan sëñ Ablaye nopp moo ci mën parce que gis naa sax koo xam ni wax na ma ko mais tey ji nii dama ni faw ma jàkkaarloog yow dëgg-dëgg pour nga confirmer ma ko sëñ Saliou man bi jàngi xam-xam jotee damaa jóg jàngi xam-xam man tooguma ci pexe wala dem di laaj ciy secret ñëw toog di ko nga euh, tund tund tund mbuur bi Joal mhm. Fadiouth mhm. Fimela jàpp euh, Sawkom mhm. jàpp Njaajën Murit jàpp Fisel Mbaadaan jàpp Ñoojoor jàpp Cunguru àll boobu noonu laa la wax képp saltige bu fi nekk wala sëñ bu fi nekk xam nga ma man doomu fisal mbaanaan laa njaajeen murit laa dëkk àll bi laa xam mhm. lu may def ci xam-xam laa koy defee ci sunmaa nuyu laa mhm. nga ne sëñ Ablaye Fall boole kenn ma wala man doon déggante ak moom jëlatuma téléphone wala la ma bëggoon ci ma ko noot mhm. ci 24 heures laa koy liggéey ma nag ñi ma mës a liggéeyal noot yépp amul ku ma mës a woo ne ma la ma liggéeyal jàppul ñaari xam nga lan moo ko daan waral te bu fekkoon nu fukk leen kenn ma ko cee woo. Mhm. ni ma sëñ bi kan la mu doon ñaari day doon borom yi rab mu doon lu ñu war a toppaat léegi waaye boo ma ko waxee midi. Mhm. balaa jant bee soo di nga ma waat ni ma sëñ Ablaye la nga ma waxoon de teg naa ci sama bët barkeb Cheikhul Khadim ñi nga xam ne ñooy seetaan. Mhm. lii ma lay wax nii xam nañ ci dara. dëgg la waaw xam nañ ci dara mais tey su fekkee comme genre ku nekk fii la nag wala bëgg noog koo xam ne mi nga bitim réew gisa déwuñ dama ne la naa xam ne yaa may noot loolu la sa tur yaay laaju ma la sa tur waajur bu góor dama ne la naa am sa tur yow sa wàll jëm bopp ak sa turu soxna si may nopp loo bëri na ci borom euh, moodu moodu yoo xam ne nekkuñu fi li laay warsul yi moodu moodu yi dañoo sonn torop fa ñu nekk nekkuñu fa ak ndey mm-hmm. nekkuñu fa ak baay mm-hmm. sëriñ bi ñuy woo Sénégal gis ko mu toog ci internet wax yaakaar lañ am ci yow billaahi sonn nañ de te ku tas yaakaaru doomu aadama yàlla tas sa yaakaar mm-hmm. yàlla nañu yàlla musal ci tas yaakaar amiin gis la nga wax loo xamante ni nii day jàngoroom mu jooytu ko fu ne mënu ko am woo wax la jafe-jafeem nga ni mën naa ko nga jëlub xaalisam nopp koo dégg loolu ku ci dunde ëllëg di nga ko layoog suñu borom demal la sëñ saaliwu bëri na moodu moodu yoo xam te ne wóolu nañ seen i soxna takk leen fii yóbbu leen ba foofu dem ñu wóor leen jaay leen ak reewande du dundoog moom lu métti ba ëpp leen doole fañ nekk bëggulu leen ko saafaraal te mënuñu koo am wala nga gis soxla soo xamante ni dafiy am borom kër defal ko ay teraanga fexe ba génne ko ci dëkk bi yóbbu ko. Mm-hmm. dem ba foofu gis leneen bu koo war. Mm-hmm. indil ko fa ay jafe-jafe yu métti di dund lu métti loo xamante ni mënu koo wax. yow mu gis la am ci oo yaakaar ak kum ci munti doon. giñ naa ko ci yeneen yàlla Muhammad. Mm-hmm. ak kum ci munti doon laa la wax. bu ma ci diggante yow. say aajo du saafara du ñàkk saafara ci ñaari ci ñaari fan. ci ñaari fan du ko laa ilaaha lii ma la wax takkal téere du loo xam ne dañoo toog di wax suñu naf su bakkan dafa am loo xamante ni nii xam-xam la doomu aadama yi dañoo ami gàllankoor ak i jafe-jafe nañ leen dimbali mhm. loolu am na solo dégg ngeen révélation yi nga xam ne moom la sëriñ Ablaye borom joni joni euh, euh, euh, daal di wax fii nii numéro yaa ngi noonu gars yi nee naa leen bañ ko xamee ba tey musta changé numéro musta puus musta randu nee naa leen képp ku ne saa su ne boo ko woowee jot ko waaye balaa ñuy ñëwaat ci wàllum ñaan dama bëgg ñu dugg tuuti ci wàllum actualité li nga xam ni moo di fi mu nii réew mi nu mu nu mu 2024 bi nu mu démarré day bari na euh, surtout ndaw ñi. sëñ Saliou. waaw. Euh, yàlla nga gudd fan te ndax am kilifa rek kay am solo. Mhm. dama la gis nga jamono ji ñu ne. ndaw lu ci amul gàllaaj maanaam li lay li lay lor. ci si biir kër gi nga njëkkee bi nga njëkkee. Mhm. fa lay njëkke da ngay gis xale bu ndaw nekk ci yoon. Mhm. suñ borom dimbali ko mu gën a tuuti ci famem famem gi yëpp yaakaar ko. ñu war koo jàppale mu nekk ci yoon jàppale ko. Mhm. saa suñu xëyee di dox ci luy damm yi tànkam. Hmm. jamonoy kaaraange lañ ne ak jamonoy gàllaaj ak téye say ñaari waajur. dëgg la te di leen dimbali. 2024 mhm. bii ba keroog muy jeex. Mhm. bi mu commencé ba léegi li nga fi dégg ci ay ndaw yuy faatu. waaw mënoo nettali nu mu toll. rawatina ñi nga xamante ni ñoo nekk ci TikTok bi baa ñu ràññee leen. ceeb bu rëyut semmal ah ku judd fi nga ko fekk ku deewit fi nga koy bàyyi mhm. waaye képp koo xamante ni nekk nga ndaw nekk ci sa buntu àdduna toll ci wut yaa xam nga nekk ci réew mi yaa xam nga nekk bitim réew loo mun a wut kaaraange ci àdduna wut ko sa loxo ndeyjoor bi nga yor sax bul ko wóolu jamono ju tollu tut foofu mm-hmm. ñun ñuy toog di liggéey ci wàllum ñaan xam nañ ci dara da ngay gis ko ñëw ba ci yow ne la bi de sama rakk ji ma yor nangam ak nangam sama yaay da ko fabriqué wala sama baay da ko fabriqué te jaratuma dara ci kër ga moo yor lépp mm-hmm. ñëw wax la yoo xamante ni nii pour nga jëfal ko kooku yow sa àdduna sax day bëgg tukki ci loolu mm-hmm. moo tax ma la ndaw toll nañ guddi yoo xamante nii bu la yàlla mayee dara ñu yaakaar dara laqul te nangoo liggéey te wut kaaraange ku yàqu dëgg la sëñ Saaliw yor naa genn gàllaaj goo xamante ni te bu la ko joxoon li des ci sa giirug dund mhm. biillaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ku toog ci sëriñ di la liggéey bu fa jógee day jëfar dëmm ba keroog mu yegg sa tànk di la tuubal barkib Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dama ne la bu ma la ko joxee mhm. ak ku mën a doon bu demee ci sëriñ dafa tudd sa tur di la liggéey fa lay jëfare ba keroog muy dir siwaat ci sa tànk boo ko soriwut foo mën a ne dina yëkkati téléphone am ni la jéggal ma maa demoon ci diwa ak diw nangam ak nangam ak nangam mais téere boobu sëñ bi garaaw na de. dama ne la giñ naa ko ci yeneen yàlla am ñi ma jot a xam. dëgg la te ñu yor ko. Mhm. bëri na ñoo xamante ni ñu ngi may dégg dama ne la jomb naa. moom la moom jomb naa toog ci internet di wax loo xam ni ku ko dégg danaa lii sëñ Ablaye Fall wax. ay ko ci dugal. li doomu aadama di wax pour ñu bàyyi ko xel sëriñ bi defal nañu ko bu dee ab cër am nañ ko. Mhm. bu dee xéewal ñu ngi sant suñu borom bu baax soxlaaluñ kenn dañuy soxlaal. Mhm. bu dee ngërëmal waajur làq nañ ko. bu jigéen ngërëmal waajur bu jur ngërëmal sëriñ. lu ñu am Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall lañ ko gënal kon lu ñuy wax dinañ ko seet ba luy jariñ doomu aadama yi looy doon mm. seet suñu diggante rek suñu ñett fan bàmmeel macha allah kaaraange du caaxaan lu ko waaye mën na wuti na ko wuti mm-hmm. jamonoy kaaraange dañ koy sàggane de wàllum kaaraange waaw bëri na ñoo ne caaxaan lañ ko teg boo leen nee demal wuti kaaraange dañ la yàllaa fi ne te yàlla nag <laughs> day seetaan ba ëllëg de mm-hmm. dama ne la yàlla day seetaan ba ëllëg bëri na ñoo xam ne boo leen ni woon sëriñ am na dañ la déedéet mm-hmm. te sëñ Saliou lu gën a doy waar ci àdduna mooy ki ngay àndal sa xarit bi ngay àndal wóolu ko mm. foo jëm yóbbu ko loo xam wax ko loo am defal ko ko kooku moo lay rey ba nga dee wettit bu sa biir dee taxawee. tuy yàlla. ci ay pexe nag la la koy defee. nit di nga ànd ak moom suba ngoon guddeeg bëccëg di ko defal lu ne te yéenewu la lu nga am saa su xëyee mu ngi dox ci loo xamante ni lu lay gàllankoor lay doon. Mm-hmm. barki alxuraanul karim yéen ñi nga xamante ni da nga nekk seen biir kër yi di wujje mm-hmm. nekk ak seen borom kër yi yërëm leen seen borom kër yi ndax dafa bëri kër yu tas yoo xamante ne nii wujj yi nga xamante ni ñoom la ñuy takk ñu ñëw ci borom kër ci seen biir kër yi mm-hmm. bëri na ñoo xam ne ñooy tas seen ñooy ñooy tas seen sëy yi ndax ay defante yu bëri dangay ngay dem ba yóbbee sa borom kër loo xamante ni maara deetaal yi wala nga ñëw sa wujj xajal la nga ñëw ci kër gi mm-hmm. nga war koo jàppe mag mu jàppale rak nga ñëw indaale ak say pexe say xalit sol la sa yaay sol la wala say mbokk sol la saa su xëyee rek ci pexe ngay dox mm-hmm. waa est-ce que ki ngay pexeel xam nga lu ko ndeyam boote wala lu ko bàyyam boote xamoo ko lan moo gën a yomb ñëw def ko mag ànd ak moom bokk ak moom ndey bokk ak moom bàyyi fesee ne jàppale seen borom kër bi ci biir kër gi mhm. ngir lu ngeen mën a nekk ci àdduna muy njariñ dara àdduna gënu ko dama ne la koo xamante ni nii yaa ngi may dégg man sëñ Ablaye Fall nga bëgg kaaraange gu wér mhm. ku la laal yàqu laal yàqu dama la ku la laal yàqu mhm. barki alxuraanul karim boo mu woowee foo mën a nekk ci àdduna disponible nga pour ñu defal la ko beneen bi ci topp mooy sëñ Saliou ay waaw yow mi nga xamante ni nii danga nekk ci dëkk bi tekki woo fi dara teel xëy comme ni nit ñi teel a xëy di guddee wàcc comme ni nit ñi di guddee wàcc. Mhm. te mënoo am dara wala nga yoroon ab place muy dox jékki-jékki taxaw temb. Mhm. wala nga den ak say nawle ay place ñuy xëy di jaay. Mhm. jaayoo wala nga daan jaay jékki-jékki ñu yàq say mbir ba am ni yaxet waaw woo ma xool yor naa samp yoo xamante ni. ay samp. gis naa ko ci yonent yàlla Muhammad ku ma ko jox nga def ko ci sa place. noppi ngaa toog boo ubbee sa place ba keroog ni ngay tëjee. barki hmm? yonent yàlla Muhammad foo mën a nekk dama lay wax fan nga fekk ma fa moom daal loolu bu nee sa place dangay doxle lépp dama ne la boo xasee ubbi sa place Sëñ Saaliw hmm. ba keroog ngay wàcc barki yonent yàlla Muhammad doo toog jaay ma jaay ma rek ngay dégg ci ak koo mën a doon nag laa la wax yow mi nga xam ni euh, dangaa nekk ci sa biir palaas hmm. saa soo xëyee ki nga jàkkaar lool boo moytuwul sax di nga ko tam dëbb ndax li muy jaay te jaayoo ko dama ne la moom la def wala pexe yamu yamu am wala la mu jug ba jaar fa ba am loolu mhm. waaw loolu ngay jéem a seetu nag sëñ Abdoulaye Mbacke doon wax naan diw moo gis am na lu muy diwoo dëgg la waaw am na lu muy diwoo nañ bàyyi caaxaan yi te tal seen bopp te jug sangatu ci defaratu yi te fonk waajur yi te fonk waajur yi. waaw Serigne Ablaye tey lañ fi dalaloon borom joni joni nee naa leen macha allah réew mi ñëpp a ko soxla. gars yi nañu profité bu baax a baax jël numéro mi ngi noonu ci suuf pour su randul benn numéro la yor waaye Serigne Ablaye Dakar gars yi soxla nañ la. waaye duñ la fi gis chaque jours yaa ngi mbuur boo ñëwee fii liggéeyal nga ay jàppale li nga jaam ñi. Mhm. ñaari fan daal di delluwaat. te pourtant. waa Dakar ñu bëri bëri ñooy daw ñëw foofu di la wala ñu nekk diaspora bi bu ñëwee foofu directement ci yow lañ jëm. Mhm. waa Serigne Saliou man mhm. du ma sëriñ buy toog Dakar personnel. ndax sama liggéey dëkkub Dakar mayu ma ko. ah waaw. sëñ Ablaye Fall borom jooni jooni gi boo ko déggee. Mhm. man ci sunguf ak reen laay liggéey. samay mbir dama lay liggéeyal léegi incha allah rabbi ci kàttanu yàlla. nga gis ko léegi. moo waral jooni jooni gi. loo gisee it li tax mën la mënumaa toog Dakar. Mhm. bu ñu déggantee nga ne ma sëñ Ablaye kat comme nga nekk bitim réew. ni ma dama fee nekk yàgg fi lool. Mhm. am jafe-jafe këyit. waaw wala da bi ma nekkee bitim réew ba tey maa ngi déposé mënumaa ami kayit wala samay liggéey doxul mhm. maanaam wax ma say jafe-jafe la ma lay liggéeyal pour sa aajo jooju faju du Dakar gii moom ma koy may du Dakar gii mënu ma koy may déedéet man àll bi laa xam sëñ Saliou mhm. seulement nuyu képp ku koy liggéey bëgg a dëkk ci biir dëkku taax yii mhm. nga bëgg ñu ne aajo ju la waay wax nga jug léegi fayal ko ko mënta ne ah wala ma xam ne ab sëriñu courtier nga bu dee alxuraan ngay liggéey nag maanaam képp ku ne xam na ni ci alxuraan moom moo njëkk te mooy mujj. dëgg la waaye demal ne la sulmaanu yu jooni jooni jii nga xamante ni ci lañ nekk laa la wax nga bëgg ñu liggéey la ci léegi jooni jooni. Mm. nga gis ko léegi sëriñ bu la la moo koy liggéey te dëkk Dakar gii bu la neexee ne ko sëriñub courtier nga. jaam laa mënuñ ko liggéey Dakar daal déedéet. man àll bi laa xam waa li waral loolu mooy. sëñ Saliou ñëwal ci man léegi ni ma sëñ Ablaye dama am conteneur buñ téye wala nga ne ma sëñ Ablaye damaa am urgence loo xamante ni léegi léegi nii balaa suba war naa koo jël war naa ko lijjanti wala nga ne ma sëñ Ablaye kat dañ maa indi pelante mhm. dañ maa bëgg a def nangam maanaam ci lu urgent daal lu jóoni jóoni dafa am loo xamante ni faw nga génn sa buntu kër dugg ci àll bi mhm. xool gan garab mooy dox ci loolu xool gan reen mooy dox ci loolu nga dem wuti ko léegi dëgg la toog fi nga toog liggéey ko léegi yóbbu ko fa muy jëm léegi su ko defee ka ngay liggéeyal njariñ la mu mën koo gis léegi mhm. loolu nag dagaar gi mayu la ko dagaar dañ fee mën a soxla reen bu tooy léegi génn wut ko léegi dafay mën a gis garab goo xamante ne da nga ci soxla xob bu bu tooy ba génn ko wuti ko léegi. loolu mënta ne. moo tax sama toogu Dakar mënta ne. dama hmm. fii ñëw nag. waaw waaye nag ku ma xam xam ne ay fan laa fiy def delluwaat ci àll bi. ku ma xam diggante Fissel Mbadane Ndiadiène Mouride ak Mbour gi nga ma xamee. Hmm. amul na ku ma xamul ci àdduna waaye sama ñàkk a Dakar lii moo ko waral boo gisee li tax ñaari mu fi ñee am fi ay fan dafa am ñoo xamante ni mënuñuy déplacé wu di ñëw. dëgg la diirëb li nga xamante ni weer bi yaa ngi ñëw Dakar di ko fi def ay ñeenti fan yu juróomi fan ngir ñi nga xamante ni joxoon ngi leen rendez-vous ñu profité ñëw nga jox leen li ngeen di jox nga delluwaat ci liggéey ba moo koy waral sëñ Saliou ñun amuñu jot. amuñu jot. Mm. boo xamante ni nii suñu intimité may nañu fu ñu waaye soxla rek ñu taal suñu oto jëm fa saa ñu xëyee bu ñu ubbee suñu buntu kër gi la ñuy seen ñu tocc doomu aadama di jóge fu ne di ñëw ngir seen njariñu bo ngir seen i njariñ ak yaakaar seen yaakaar jooju saa suñu xëyee moom la ñuy ñaan yàlla di xëy di leen ko lijjantil nañ koy bëggee ñu koy amee noonu ndax yaakaar du fa tas dëgg la sëriñ Ablaye borom joni joni sama question mu mujj tey ki nga xam ne maanaam mi ngi fii bëgg tukki wala ku nekk Europe ba bëgg am papier te mun ta fexe ba am papier tey jii nii est-ce que bu ñëwee si yow maanaam war nga di nga ko mën a saafara loolu ba nga xam ne bu demee déposé rek di am papier. waaw sëñ Saliou woo ma yow mi mu daal. Uh-huh. nga dem fu ne. Mm-hmm. billaahi nekk Europe. balaa maa ñëw ñu nekk Sénégal. nga dem fu ne am jafe-jafe këyit. Mm-hmm. wala nga nekk fa amoo liggéey wala bërëb boo nekk ñu dàq la. billaahi wala nga jóge fii ñëw fi vacances benn yoon dellu. Mm-hmm. ñu yàq say mbir ba mënatoo am dara. déposé këyit laa la wax dem ci sëriñ bu ne fay sa xaalis woo barki Seydina Mohamed. bu ñu déggantee man ak yow ba ma wax la li ma lay wax. doxal xool ba ma ne la jàppal bis nangam. wallahi laazim balaa boobu lépp lu nekkoon sa sa sa sa gàllankoor ci loolu dina saafaraw yow mi nekk Sénégal nag yor sa passeport ni da ngaa bëgg a déposer bëgg a tukki bëggoo ñu résulté la. Mhm. dama ne la ak foo mën a ne boo mënut a jot ci man woo ma nañ déggante fotol sa passeport première partie bi ak deuxième partie bi fi tampon a dóor. waaw nga ne ma sëñ Abdoulaye noonu ñu ak yow déggoo ci kàddu. boo demee bu ñu la résulté giñ naa ko ci yenente yàlla Muhammad ma damm sama xalima laa ilaaha illallaah dama ne la xam-xam dañ ko jàngi mm-hmm. sama maam jii nga xamante nii bari na ci loo xamante ni ci sulmaanu yu kenn joxuma ko mm-hmm. moom moo ma ko jox ginnaaw bi ma dajalee bu ñëw toog nag mm-hmm. mu ngi ci téeméeri at ak fanweer ak nangam ba fii may wax ak moo mooy doxi soxlaa mooy demal fépp boppam fépp nekk njaajër murid gi di ñaan sëñ Tuubaa di ko yalwaan yàlla aw fanam gudd te wér maam Baye Fall Diop ak dëkk tunduk njaajër murid maa sha Allah waaye sëñ Saaliw dama ne la ñaan du ay pexe ñaan du bëgg lu neex doomu aadama sëñ Saaliwu Mbaay menn mhm. mii nekk ci TikTok bi dama ko gis mu wax lu am solo nee na ab sëriñ boo toogee yaakaar ci kiy ñëw ci yow di la ñaanloo sab dépense mhm. saa su ñëwee doo ko wax dëgg di nga wax loo xamante ni loo jariñoo ci moom la wax te lu wér la wax gis naa sëriñ ñi di ko dingat waaye lu wér la wax mhm. nit da ngay nangoo liggéey yor loo xamante ni moo lay may ba ñu sukkandiku ci kenn dëgg la sëriñ si nag nañ moytu ah di foowe jinne mais bëri na fi léegi de. waaw ku génn ne borom may borom jinne. yi dama ami jinne waaw sëñ Saliou li ma la wax nii déggoo koy din dama ni la. barki Seydina Mohamed. Mhm. aw may jinne de. waaye damaa xam li ci jinne. aw mooy jinne waaye da xam li ci jinne damaa xam li ciy jinne. te li may def. moo raw. li yi naan dañoo yor jinne def. Hmm? tollu muñ tollu ñu ma fii. barki yonenti yàlla Mohamed. tollu ñu ma lu toll ni tarafatal xay ni hmm. dama ne la ñiy toog di fooyee di waat ci alxuraan naan dañoo yor ay soixante jinneeg ay ñeenti jinneeg ay jabaru jinne waaw waxuñu waaw léegi moo <laughs> waaw wax la ci dëgg <laughs> moo borom jabaru jinne yi waaw moo wax la ci dëgg sëñ Saliou jinne boo ko xamee dëgg doo ko fawee hmm? jinne bu la neexee toog wax ko musiba bu la neexee toog wax ko lu la neex bu la neexee toog ci sab saal ñu dégg ay micro nga naan damaa yoru jinne petit petit waaye dama ne la jinne ko xam doo ko fawee hmm, hmm. barki seexul xadim waxuñu dëgg kenn yoru ci jinne dama la sëñ Saliou jinne lim làmboo lépp. ndeysaan. gars yi jàppee ko sëñ maam Thierno Fall dégg naa ko ci benn laay fa mu di ko wax. xale yi ñëw tegal ma ko man li lii mu leen wax ci jinne du deñ jinne yow mi doomu aadama bokku leen ay ay martaba bu amul lenn lu leen yàlla boole loo xamante ni war ngeen a communiquer communiquer boo xamante ni foo toog da ngay am sa sago boo xamante ni da ngay mën a wax ci ñoom mhm. ci boo ko amee muyu la loolu dëgg la dama ne la jinne rek bu dandee ay mètre boo ko amee wala yow nga xam luy jinne bu la xeeñee nga xam ne lii du ñuy caaxaane nañ bàyyi bës bu mu la dugal ci wax bu mu la dugal ci wax loo xamante ni ëllëg dañ la ciy xeeb demal la ñaan du yàqu yow mi koy def yaa yàqu nooy yàqoo wax lu dul dëgg ba nit ñëpp xam la ci foo jaar ñu ne accam waaye ñii mën ñu ngi mën ba tey ñiy def muy am hmm. ñu ngi def muy am ba tey lii nga xamante ni ne xew na fi nañ koy moytu hmm. wax lu dul dëgg ngir bës bëgg nit ñi xam la nga génn wax ay goromo yooyu du dara xam nga lan moo fi ne fexeel ba li ngay def nga maîtriser ko boo koo ñaanal mu ñëwaat Serigne Saliou man ni ma doon ñaanal fukki at ci ginnaaw ba tey laay liggéeyal barkib Serigne Saliou Mbacke ñi ma doon ñaanal fukki at ci ginnaaw ba tey ñoom laay liggéeyal sama toogaay bii nag mhm. du toogaay bu woote boo xamante ni damay bëgg ñëw ñëw far foos ndax man li ma yàlla di may may na ma ko ba noppi dëgg la man diw ma fenn mhm. saa su ma xëyee bañ naa ko ba léegi heure réservoir sax dama ko wut bu may nopp ci réservoir bi dama ko wut ngir benn loxo bu ma doon bu ma neexoon ay garde corps fu ma jëm ñoo may topp. bu ma neexoon ay secrétaire fu ma jëm ñoo may topp comme ni ko gars yëpp di defee. Mhm. waaye yow mi ma yaakaar di ma liggéeyloo woo ma jot ma yónnee ma sab xaalis jot ma nga war a jot sa liggéey wala nga soxlawaan ma boo noppee ñu naan la sëñ bi a jàpp wala ñu di la bloqué ku ko ciy def boo deewee yàlla lakk la mhm. te fii ngay toroxe balaa ngay faatu dëgg la waaw nañu fonk doomu aadama yi seen yaakaar yi loolu am na solo a gaaw macha allah naa ni war ngeen ko mën a woo ci numéro muy 77 732 26 03 ñu bàyyi la nga daal di waaw mooy waaw léegi ndaw yeeg yooyu noonu. waaw sëñ Saliou. maanaam li ñuy tàggatoo mooy. di ñaanal Sénégal jàmm te mu sax fi. te lii lay war a sóole sëriñ siy génn naan kilifa gii dina dee. kii dina dee kii du gudd fan. Hmm. xamuñ ci seen bopp dara ñoom. Hmm. barki yonent yàlla Muhammad xamuñ ci seen bopp dara ay pexe yi tappale rekk leen ci dugal. Hmm. ab ñaankatu yàlla la nga warloo mooy. foo di sell di julli di jàmm yàlla ku ñëw wax la yaakaaram nga wéetal yàlla wala nga liggéeyal ko ci xam-xam bi la yàlla may ñaanal ko mu dem waaye nañ bàyyi génn naan diw dina dee diw dina nangam di ku la ko waxati laaj ko sa njaboot wala yow kay nga fiy jóge duñ la tontu mm-hmm. waaye léegi la moo tax ñu koy teg doomu jàmbur yi ba loolu Wally Seck mii gisoo sëriñ si ko niñ ko niñ ko dégmale fan yi luñ ci lu leen Wally mën a yokk wala ñoom lu ñu a yokk Wally te ñëw jéem a nekk seen bopp doomu jàmbur la am na ngërëmal waajuram lu gën a jafe ci àdduna fexe koo saaku ji est-ce que yow miy toog di ñaan naan naan nangam diw diw diw dina ko daal say ngërëmal waajur làq nga leen. Mhm. waaw da ngay a def ni moom nañu bàyyi yooyu tey ñaanal ñëpp jàmm. macha allah tey ñaan dëkk bii jàmm sax fi. tey ñaan mboolem lu fi ay war fee wàcc. ba ci njaboot gi fi nekk ndax Sénégal benn bopp la ñëpp bokk ndey bokk bàyyi. Mhm. man de personnel bu ma demoon sax bay toog nii di li saxaar di gis loo xamante ni ay la comme ni ko ñëpp yi gisee. wallahi jàpp naa ba seetlu dugg jël sama kurus jàng samay xasaayit ñaan dëkk bi jàmm am fi waaye da ngay génn naan diwlu fii na fi am ak gars yi koy wax yëpp ci ay tanaatoo pexe bëgg bës lañ koy waxee rek nañu tal seen bopp tey ñaanal réew mi jàmm ah. di sant suñu ñaari waajur di sant bu baax a baax a baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi teewlu émission bi mhm. lépp loo xam nag wax nañ ko fi ci njariñ nga am yéen ci ñun am soxla ci ñun boo ñu woowee ci numéro boobu mhm. une minute boo ñu jotul boo ñu yónnee message whatsapp dinañ ko tontu ndax doom wuyuwul taalibe wuyuwul bëkk néeg wuyuwul soxna wuyuwul ñun personnel la du secrétaire mm-hmm. yooyu duxuñ ci yooyu ay caaxaan la rek duxuñu ci yooyu laa la bu dee xat kenn gënuñu ko def waaye nit ñi nañ leen di jàppale ngir yaakaar gi ñuy am ci ñun jërëjëf sëñ Saliou yooyu ñu ngi lay ñaanal jàmm nga bokk ci milliardaire sëñ Touba yi amiin yaa rabbal alamin ñu tuddal sëriñ Saliou Mbacke macha allah jërëjëf sëñ Saliou nee naa damay am contentement di jàkkaarloog moom nee naa leen saa su ne noonu lay demee ñu gën ko xam ci sëriñ Abdoulaye borom joni joni képp ku ko woo ci numéro bi nekk ci barre d'écran bi di nga ko jot ñu gën ko xam ci 77 732 26 03 di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yooyu incha allah jërë ngeen jëf